باسمه قلبي كلا كلا غده اليه الذي عمت غائبه لجملة الخلق ما يختار من غراه ما عليك هو كلا هو كرمني تكرم هذه الحكمي من لقمري رحمن لجميع يخلي عن زويا قرآن وخلاف وهو عن كل مزدك وترامي خلقه يا من جد يا من سبحانه ربنا كيفا كيفا يخرج مسافرا مسافرا لم يره خير خير من قد خدعنا ووقعنا وحبا فنسرق في بابنا من قد خدعنا سقوا ولم يتوبوا فيما حسن عبد رمضان وليلة خدر والمحرم ثم سلاما وسلاما على الذي سقيت أحلاما محمد محمد والعالي وسعد الجهود وجاه اسمي ومن لهم يمين لهم يمين يا من لا ينال والخطوبة من تقابني تقابني بنا خطوبة يا من يا من الأقدار والخطوبة من تقابني تقابني بنا خطوبة الأوتار يا باقي حلق الجدار أنت سلام إنك المنام تهمن يا رهين يا حنان صلي وسلم وتبارك سلمك على نبيك رسول أحمد وهالي وصحبي وتقبلي مني من وقواس وفي الذين خلقنوا أو نقلوا أنت هادي يوم ما يسألون وفي الذين خلقنوا أو نقلوا أنت هادي يوم ما يسألون هذه الذي كما الخطوبة إلى بيوم سعوه يتوبة أسكنه شكرا يقينيا حسن ما ملا روحنا روحنا من السلام إنك المنار رحمن يا رحيم يا أمان يا أمان سلي وسلم وأنتم عارفون على نبيك رسول أحمد وآلي وسهدي وتخبلي من بناه وقاسم وفي نازل يسهلوا واكفي لزينا حتى لو أو نقلوا امتحاتي يوم القيامة يسهلوا واكفي لزينا حتى لو أو نقلوا امتحاتي يوم القيامة يسهلوا لم يبدو يسهل سبع محمد سرا وجهرا في

له لا يردي له سيادة له يوم على سوء ونرى المصطفى هو النبي والرسول والغني وهو الأمير والإمام والإمام براءه أبيه بالخير جمل وصنع القدوس عن خير كما الخير كما عن خديمي قبل وزار نعنى البري بعد البري حاكمكم واليوم قتلهم بالله ما اختار اكرمته بخرى امر والتكريم فعاز عن جملة اصبعي اسار خليته عن شعار الله قبل خليته بالمنى

خرجنا من السرنا أي سلطان قدر قدر ما له خال ما يهوى أو أوتار ولا لئيم بيعصم منه منصرفا منصرفا وكل ما فيه دور نبع أوتار بخيره ينتهي ينتهي إبليس في عمل في عمل كفاه وتحمل الأقدار أنت نبي رسول المصطفى ألما صلى عليك الذي تبدل خدار إني رجالك يا خير الورى أبدا عليك سلم من سلم كل الوزار حدثني عن ابني عن ابي محوك ان يهوك ان يهوك اليوم اوزاره ولا تزال ولا تزال مكرمنا يا تسر لنا حبوبا ولا تزال ولا تزال مكرمنا فتوبا يا تسر لنا حبوبا مفتح لنا أغلقا باب سوء يسرنا في النغل وسمائه يسرنا في البدر أو في العين يسرنا في حق أو في سودي يسرنا في القسم أو في عرضي يسرنا في الحمل أو في زهوي يسرنا في البدر أو في ماء يسرنا يسرنا في الليل وكما يسرنا في الليل ونهار يسرنا في سر والإجار يفيد كل الدار يلاه بالسر لا إله إلا لا يفيد كل الدار يلاه بالسر لا إله إلا لا حبيب إلا الله خبل منادي فما أهواه بالسر لا وخلق بالسلام الله سلم الله لا اله الا الله صلاه مخلق بالسلام الله السر الله لا اله الا الله صلاه مخلق بالسلام الله السر الله لا اله الا الله حمدا لمنزل الله وداعي ومنزل سواه أنا مر الجبال بدعائي ليفقوا به عن البلاء ثم على من على ay suma say samar ya bakira bakira sakir khala sakir khala muhammadu سيدنا الحكيم حكيم استاذنا ربنا الكريم الكريم وهالي وصحبي وصحبي سمي علي علي محتجزوا لسنا من سراي هذا وإني يا مسؤول جاي

يا حبيب يا سيم يا سيم يغفر ذنوبنا ذنوبنا تقبل منا مهمنا وتجاوز عنا يا برو يا برو يا لطيف يا محافظ يا من له امر ولا يسافي انت سفاح كما ولا تحملنا بالابتلاء وانزل نفرك ما كان ضري يا خيرا ما كان سري وانزل يا

قبلتي لم يدركوا بدعاءكم بدعاء المدار هنا تقدير على ملائكة إنه في يسرون قلوبهم ليس تميل أبدا إلى سواك من لا إله إلا يا مخلب القلوب خلي قلوبنا عن الحروب يا الله يا مخلب القلوب خلي قلوبنا عن الحروب واخرنا بكل مسلم كل مسلم ونجنا من شر كل مجرم واجعل جميع جميع مسلمين ترى لنا عقلا فالمصدرات مؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم في الخداع واجعل جميعا مسلمين في القاع والمسلمات بريادهم تقى واجعل جميعا علماء حاملين واجعل جميع عاملين المخلصين واجعل جميع مخلصين زي جميع سيد الناصرين وجم جميع ناصرين صادقين وجم جميع صادقين فايزين واخرنا يا ربنا بالخدمه للمسلمين ابدا ورحمه وجلهم فينا هدى وخيرا وكفهم بنا سبديرا واخرنا بحب وجهك وعقلهم بحبنا فنصرك واجعل جميع اخوتي ونسبي في رحمتي يوم ازداد نسبي واجعل تعصوا ولا تعصوا ولا تقصوا ولا تدبروا ولا تبخلوا ولا تنفروا حتى نسير مسلمين خاسرين والمؤمنين مؤمنين سالين يغفر لنا يغفر لنا يغفر لنا بالعافيه تكون في دارين خيرها فيها مبني وخبني وخب صنع مصنع والنجي كل مسلم ومسلم Woo! محمد طبيبنا الأممي الممهل معالي ولا السليم ولا السليم وصليا وصليا عليه ثم سلم وآله مع سير قرآن ما أفلح ما أفلح مسؤول بدعائي بدعائي وفي مريضي مريض سساي ولناسي عيدا صدقنا سفاحا وفيدا يا من يروم يا من يروم كل داعي فلا تفارق مطلب صفاي وقم عليه في المساء والصلاة وأخذ ذنب ذنب صبا وصلاة بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما صلى بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما صلى Aku kehak hanya seribu ribu, ribu, tak kalah mudah. الخديم قد قال موسى خادم الخديم لمن أواكب خادم الخديم يا ساهر يا ساهر عن سبب تحميمي يوم خروجي مدو سكاني دخمي عين دغلم تجي مروي ويلو تجي مريلو كل جان لاي تجي مريلو سيدي ابراهيم فال تجي مريلو كل جان لاي تجي مريلو سيدي ابراهيم فال تجي مريلو كل جان لاي الخير في الخير في المختار waxtaanu waxtaanu daa fi la sii la sii ونار دخلا سيطان بنيخ البقر الدنيا كلهم سكر دامنا نوم يبوي بما جهارنا جهاد نفسي هو بسري سعيناكو في نفسي خطأت في بري لو سيداني تفتبو خير الورع أوتاني مو والأسرار دفن بلاي يبقى النيراني ندور كنا تمني ورف نصراني دفن بلاي يبقى النيراني ومن يعذب ومن يلاي نور يا أبو يوسف دور لاي ندور كنا تمني ورف نصراني دفن بلاي يبقى النيراني دفن ma wax la war a màggal bi nga xam ne Cheikh Bamba réel de am ni réel de am ni taarix ba taarix ba ama jëy sa fi mu yam na fi mu yam na ndel Serigne Bassirou kenn mo taarix ba taarix ba ama jëy sa fi mu yam na fi mu yam na ndel Serigne Bassirou kenn mo womat nga du di aguloon ci bal sabaay womat gumbo boot na fa ñeegal kono góoru tikeer yàlla di jox ay jaadaay Cheikh Moustapha Mbacké yaa jëra am na xel womat nga du di aguloon ci bal sabaay Obrigado. احنا يبكينا ثم يعرفنا ولولا لا يسامح ولولا قصيدتي قصيدتي فاتت قصائد القران ولتقول اعظم الخدام هديتي محجلة الكلام كان مناصر وساوي مخاك وكلام العلماء أصحاب الجمعة هم فيها خالدون إليك يا خير البرية سلام حبيبك الذي كفيته المنام صلى عليك أبدا سلام في الكون والأصحاب ربنا سلام أخرجنا من السلام من كل نور والخباب بالكلام بصرك الجميل يا خير الهلال إذا نويت فيك سعيد الأمام أنت النبي والرسول والهمام بك الخيار صالحين بالسنان لك اللدى لك اللدى رب الورى كل لك به يا سيدي يا سيدي لك فتلهون عليك كل عام وكل سيد والكتاب لبعام ويدسك الهون عليك بالخلاف وخيرها أحسن جوامها الكلام ربيتي قصدرت إلى التراب يا خاهدا من علاء الظلمات تبت لربي ساهر بسان سام يبقى وخل من عبود بالحساب سبحان الله ربك وبه ستيم يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين مثل ما سفر معاكي في الوجوه في البرايا زماني لم يعدو نفر في الوجوه في البرايا زماني لم يكن مثل المسافر وزيرة لكل ذا مهوى يقول الساهر والباطل من أتوه لله في كل زمن جنته عنه بها زمن ورزقا wàllum ruux la moom jàpp naa ni lu am solo beneen perte bi moom ba ba léegi ñe mbokk taalibe bi ñu koy def mooy wàllum xéwal ndax ndéem def nañ ko nag. ba bokku taalibe yi fi mu ne ñu ñu ñu ñu ñu taxaw nekkoon si ñu dal dal si tuuti boo ko defee dañoo bëgg rek di waxtaanee sëriñ bi ñun ñëpp ñu dundalaat xol yi dundalaat gàddiwaat xel yi soññaat suñu bopp diggante sëriñ bi waxaat ñu ci programme am ñu ko bëgg a waxtaanee moo xam fan lay dugg waaye daal day dugg si ak cant rek ndax moo ñu fi indi ñëw fii doon sant la Serigne Touba yàlla subhanahu wa taala ni nee bi ñu ko war a cant da koo lot mu bëgg a woor bi def yëpp ñu ñëw di sant la ko yàlla suñu borom loolu nag moo ñu fi dajale kon kenn ku nekk nañ leen ko sàmm ba keroog ñuy dellu ndax kat ñu ngi ñaan yàlla yàlla nañ ko fekkee ay ati ati at waaye nag déwén ñëw na kon jot na ñu si màggal bi te cant gi weesoogul ñu ngi si kenn ku nekk na nga bàyyiwaat xel orienté waat sa bopp si sëriñ orienté waat sa bopp si màggal ndax kat màggal yàggul màggal yàggul nga am njëriñu àdduna ak njëriñu alaxira loolu boo la yàlla suturaale ba nga fekk ko war nga bàyyi xel bu baax a baax a baax kon ñu ngi tuubaat bu baax nga xam ne dañoo toog ci siège yi te te li ñu bëgg mooy suñu mënul bu fekkee dañoo jàpp ba mënuñu dugg si bâche bi dañoo bëgg ñu wëlbatiku jàkkaarloo waxtaan waaw ñëpp te képp koo xam ne yaa ngi nga jàpp mënoo yegg si fii dañoo bëgg nga tourné nga déglu waxtaan koo xamante ni nag jàppoo dañoo bëgg sëriñ bi nee na nga ñëw fii si biir baax bi ku war a yees bu fekkee yees loo ko nga yees bi ku war a sol yére nga sol ko tamit nga gis bu ko defee ñu ngi tàmbali bisimilah sëñ Mor Diop. bisimilahi rahmaani rahim bisimilahi badaltu raadiya minhu tamaada an akuna naadiya bismillahi lazi qur'aan qad nazala min intidahi wa abdahu nuzula الحمد لله الذي يسلم على النبي المتقى المسلم الحمد لله وصلى ولا على الذي به لنا الهدى ولا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال إني على أحمد ربي أحمد فضلا وخير القول إني أحمد وسمير القديم يمضى أحمد من مثله في القلب ليس يوجد قطب الاقدار سيف أحمد سيسكت بين المسلمين يقول عبد الله وهو أحمد قديم من سمعته محمد رب سرع سفري ويسر لي أمري واحلل عقدة من من قولي السلام عليكم yëpp di sàkk ci ñëpp di ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha sunu borom dana guddal aw fanam gën ko wér noonu lañ koy njaboot si waa ñëpp ñu wàcc ci béréb bii ñu nuyu suñu kilifa yu yi ñu fekkoon mel na bu baax di leen siyaar si di leen ñaanal seen taxawaay suñu borom gën koo dëgëral te yàggal sax ñoom ñaani di leen ndokkeel bu baax ci yitte ji ñu jox bis bi ak yitte ji ñu jox euh, hôpital bi fi daje yëpp ak teew di teew ci bërëb bi di déglu waxtaan bi nga xam ne séeréer bu di seen yëpp la foo sëñ dañ sëñ bi xamul seen ñàkk yëpp seen idée euh, dama ko doon naa ko wax ak sëñ ci suba rek sëñ bi ko ma naan ko dugg gi ngay dugg ci biir taalibe yi di di di saafonteeg ñoom di jëflanteeg ñoom di dund di dundandoo ñoom sëñ Tuubaa loolu yóbbu loolu day waxoon ci jamono yombul ndax kon ne ko message daf may jox photo bu mel photo Serigne Saliou bi mu liggéey woon ci biir dongo yi nga xam ne dongo yi ko samp piliam bi képp mooy mooy mooy feeñ kon nag ñun dañuy sant bu baax bi doonee seen i taal bi ngeen ànd ak ñun ko dundal ak ñun di nuyu moo leen koo xam yaa ngi dégg suñu kàddu ci gox bi nga rawatina moo leen koo xam yaa ngi ci bërëb bi bis bi tax laa yëg tax laa jóg ñoo ngi lay nuyu di la ñaanal di sant yow ñaan di nuyu si Abdoulahi moom nit bu bëri pasif la te pasif dafa am solo pasif dafa am solo waaye moom nit bu bëri pasif la ci ci ci lu ab diggante gàtt gàtt da koy jox yitte jox ko pas ba ba nga xam ni yow mi mu siqal sax dara ci soññ loolu nag warteef la ci bépp taalibe boo xam ne yaa ngi ngërëmal yàlla bu te nga xam ne moom nga jaayante kon ñoo ngi koy dokkeel ci bëccëg bi ñu doxee ci ci ci ci bi waaye rawatina ci daara euh, nit ñi gis nañ ko waaye daa sëñ bi ren itam daa waxoon waxoon solo daf yoon Pastef ak PAN dañoo nuroo bokk Pastef ak PAN nee na dañoo nuroo bokk état bi su ko tegee PAN ba nga jàpp ne Pastef waaye PAN moom mënut a yàgg boo ci xëyoon balaa nga war a dem ba ndox Pastef nag na ngay des nag ñu fi ba saa loolu mooy loolu mooy seen urgence moo tax seen njëriñ ne Pastef ak PAN dañoo nuroo waaye boobu muy royukaay am solo ndax jiw bi loolu rek lay jëriñ mooy nekk. doon ci nga jiite ñu di la roy ci fànn yëpp bu fekkee ni ñoom xam nañ bu baax a baax li nga jiite mooy lan ak it sa saw dox yi bu fekkee ñoom xam nañ ko bu baax a baax kon ñoo koy nuyu bu baax si yu day di ko di ko jaajëfal waxtaan nag loolu naa ci loolu ndax daa ngi wax sëñ Basi tey jii maa ngi naan man de léegi seen kanam yëpp ci kàddu loolu euh, dëgg yàlla léegi ci man lool ndax xam naa ni wax. ci sëñ bi waaye ñun xamutoon moom jóg ko ko waaye nag ndigal ndigal moom daa daa daa seeti doo waxoon ne ndigal caabi la su ëppee lu ubbi day mat caabi rek dama seer a xam waxoon dara tax ñu xam-xamam ñu wax waaw kon nag loolu laa ko wax tey suba sëñ Tuubaa mi nuy waxtaanee itam sa jàpp ni muy soññee naan dundal nañu yaram bi ci lekk ak naan dañoo war a dundal ruux yi ci jàng ak waxtaan loolu lu am murit mottal mottal war koo xam ndax waxtaane Sëñ Tuubaa day day day day loo xam ne fi ne nee naa xasida li muy baax baax li muy yëg ci nit boo ko tëddee xasida dina defar sa jëm dina dina dina la tërbi dina la tasfiye dina la jaarale ci aw yoon waaye waxtaane Sëñ Tuubaa nag moom li muy def ci mooy da lay tax a bëgg Sëñ Tuubaa moom day tax seen bëgg Sëñ Tuubaa boo ci nekkoon cent suñ paree nga doon deux cent te bëgg Sëñ Tuubaa bu nga xam ne nii bu nga xam ne nii ci sëñ bi wax bëgg ko dem ci wax moom ci ay bay ay am yaat kenn ko mënuñu toog waaw waaw sëñ Bassa sax nee na bëgg Sëñ Tuubaa moo gën jàng si waaw waaw donc ñoom nag sa waxtaan bi moom foofu la lay jëlee kon ñi muy soññee moom daal di ngir ñëw teewlu waxtaan bi loolu ndimbal la waaye tamit ndimbal euh, massiw tamit ñenn ñi dañ koy am ñenn ñi ñàkk ko ci ci ay wet ndax ndimbal si waaw ñëpp ko am fu ñu rek koy am waaye ci biir dëkk bi nag ay wet yoo xam ne caa war a jëm loolu nag tàmm si bi la war kon jëm ñu waxtaanee ko jaamu yàlla boo xam ne amul jaamu yàlla bu ñu toll sëñ na ni ñu nangu ak koor bu ñu nangu ak ya ci aju nga xam ne am na la ni nasalaati kasaay wal munkar julli li def ci nit mooy nga koy tàggale ay jàmm day tax tegu ci siraat mustaqima tegu ci aw yoon ba ba mu ci paree daal day def ñu nangu يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون dégg nga koor yi tax mu digle ko xam ne ragal yàlla yóbbu ndax ragal yàlla mooy tëgg tëgg ak mbir mooy tëgg tëgg ak mbir bu mu ne ci yow man la ne fekkoon ne alquraan al-islaam karim bëri na lu ko yomb man la ne li ci jiitu mooy ragal yàlla sëñ Tuubaa ne bu na ngóor bu ca nekk góor bu ci ci gàttal ñaaw kee kon fekk ne julli yi nangu na rek ñaaw kee fi day wàññi waxtaan ragal yàlla tamit boo gisee mu joxe te koor yi bari mooy yi nangoo bëri kon bu sëriñ bi ne julli bu nangu ak koor bu nangu yàlla rocc na góor ñi jubal ko ci ngir waxtaane moom nga xam ne booy waxtaane koy wax ak kii déglu jamono jooju am ngeen jublu bu ñu nangu ak kooku kon yaakaar naa loolu jaamu yàlla mooy toll nit mosu koo gis ñoom bi mu waxee loolu yi ba pare dajaa teg ne waxtaan ba kat ki ma njëkk leen koo teewoon waxtaan bi ñun ay ñu ne quoi loolu day mu mel ne mu delloo question bi danaan quoi ah, loolu de surtout waa kii man. ki ñu ci ki la njëkk a waxtaan yi du nit ñeent teewee waxtaan moom duñ ay nit fan ko doon defee du fii ah loolu de kii man mu ne conférence bi nga njëkk a waxtaanee mooy yàlla seen bopp moom mu njëkk a waxtaan ba may waxtaanee malaayika yi day invité ca biir ba di ma waxtaan. وتقدر نوح أيام سكرتني جند جميع جندك يا خير جاي أمك جندك جند تبقى بيقول يا الله سنت جند لا يخالف منا أنا kon nan la mel ci yëpp lépp lu nit di defal si tubaab yàlla ci jiitu ndax day jaamam boo xam ne da gërëm day jaamam boo xam gërëm suñu borom gërëm ci njëriñ war na jëndi kafe gi kaas yi mu war a jëndi kafe gi kaas yi mu ko laal ak sëñ Issa naan ko Mbàkke ba fàtte sëñ Issa ndax jàppal kon kooku xam nga ne foofu mu tolloon ci ci sëñ bi wax kawe nga xam ne loolu mboolem nit ñi fi yàlla yëpp ko seede sëñ Issa bi sëñ Tuubaa demee ci géej ba ñibbisi woo ko seen gisam sëñ bi ne ko na nga fi bàyyee gan jaam yàlla rek am taxawee ginnaaw bi ñuy juróom encore weeru koor ak jàng alxuraan mu ne ko ginnaaw yooyu yëpp de jataay bu ñu dee waxtaanee dama ko dàq ñu dee waxtaanee ba ñoo ne toog tas kenn ku ne ñibbi sa kër ma jógee fa seet beneen jataay sëñ bi ne ko sàllam de gis naa la foo xam ne sa digganteeg sa borom dégg jataay yooyu nga doon teew ñu ma koy waxtaanee moo la ko yóbbu nga xam ne gis nga li mu teg waaye jataay yi ñu doon tàkk ñu koy waxtaanee Sëñ Tuubaa sëñ bi nee na ko loolu moo la fi yóbbu dafa waxtaanee Sëñ Tuubaa dara ci ci la busaay ci ak ak ak ak ak ak dayoo. bañ a des it mooy dañuy dañ ko tuddee waxtaanee Sëñ Tuubaa waaye kenn mënut a waxtaanee waxtaanee Sëñ Tuubaa sëñ alquran sabab man la gën a dunya wa uxra sabab maa ngi ko woo iqtirahu Muhammad addina ak alaxira sëñ am nit ñi seen biir leen wax si maam wara xasri ala llahi fi yadi wa ma rubtuhu min malikin xaalisin ani kon ñi waxtaan ak ki wax ñi déglu ak ki waxtaan ci ñi lënd léegi mu des li ñuy wax ci moom mooy nekkat yàlla moo kon kenn waxtaan bi nag day gis boo xam ne léegoo day ay ay coono la ak i kiis ak i nit yi ak ay naqar yoo xam ne sañu koo fësal ndax ñu bari sax dañuy nettali teewu géej gi sëñ bi tukki gëm tukki woon ci géej gi di ci nettali yu bari waaye mas na ne sëñam sëtu jaxate sëñ bi mas naa toog moom ci njëriñ ne ko am sëtu mu ne ko mbàkk mu ne ko moo waajee ngeen dem ci géej gi suñ borom dafa bind ñaari malaaka ci saas ñaari malaaka la yàlla bind da tax bind leen kenn ki da koo da koo dëkkaloo ci sama mbokku nday yor kenn ki mu dëkkul dëkkaloo ko sama mbokku càmm daal ne ko ñaari malaaka yoo xam nga lu tax sama borom boole mag ñoom ne ko mag ne ko déedéet mag mu ne ko lenn képp la leen yàlla sant ci mag mooy ñëpp li tubaab yi jëflante mu ci aw métier ak ñaaw ak ñaaw ak naqar lenn képp la leen yàlla sant mooy ëpp. ba ko képp la leen yàlla dimbalul ma saa borom mu bind nit ñi boo nee ko li nga defaroon yëpp ma yàq ko bam bam bam bam bam jeex tàkk te duutoo jariñ ku la yaakaar mu ko waxee loolu daan ko xam sa ko xam mu mujjee mu ko am na ko seen waa ji dem ko dikk ñaari ma laa ko mu dara ndax mën te néew te xoolal ko xam nga wax ji yii ñu nettali il ñu def ci di di ko di ko ci xalaat dama laa bëgg wax ne la baatu ko dafa yërëm nit ki dana sonn di tëdd ci lal sax wax nit ki dana sonn di toog ci ab ab saison sax wala ba sax wax ndeke kon moom nekkul ne sax dañuy gis nañ ci yow ak coono nga dal ko wax maanaam man ngaa liggéey wàcc sax ñëw sonn lool di suunu daal di jëfandikoo baat ko muy lu yomb kon ci dundu nit ki boo ko xoolee dund loolu noonu li muy yomb yomb suñu borom mooy pour suñu tubaab di tukki oh moo tax dañuy seen sa bopp mën na koo màggee mu ne ko dem naa ba dikkati ñaari malaaka yi di duñ dara de seen waa ji dem na ba dikkati néewul ko fii la ko wax ci jaay léegi nag màggal bi ñu bari dañoo desee xam taarix màggal ñu bari dañoo jàpp ne màggal bi sant yàlla gi yàlla doon wax dëgg la cant boobu la waaye cant cant gii nga xamante ne bi nit ñi dafa toog ba yàgg ñu yëg ne war naa sant sant bokkut ak cant màggal cant màggal bi ci kaw Sëñ Tuubaa di ko jëflanteeg moom mu di ko muñ ñu di ko ko teg mu di ko muñ ñu di ko sëf mu di ko muñ juróom-ñetti at yàlla nga moo wax ba léegi nga ñibbi si leen ne damay sant aha jant boobu nag boo ko jot jant bi nga xam ne ci daal tool ba yëngu daal la sant sant boobu déedéet te tuddib Sëñ Tuubaa a ko woyofal bu ñu ko yàgg dégg nga woyofal nan ko xam suñu bopp mooy dama dem Dakar boo ko doon dem Dakar bi war faa am ñetti weer maanaam guddi fajar bi nga war a dee guddi boobu du ñaar condition te tukki sëñ Tuubaa sëñ bi am ku ci waxtaan am kenn ku ci diisoo ginnaaw bu yéen ñëw maam Thierno Ndam maam Thierno dem jox mission bi kenn si jaaxal ci wax ba gouverneur général di laaj naan sëñ bi ko doon laajte xanaa kii la ñu ne ko déedéet kii rek donc man de mos a ñu ko def fukki ci moom bi muy dem daal xaaw bi mu dugg ci bureau bi ak bëseet bi ak ak ak ak ak ak yitte ji ak mission bi ñu doon Sëñ Tuubaa ñor gi ñu ko dem na ba gouverneur général di ko jaawale ndax sëriñ bi ñu doon laaj ci kii la ndeke waaye dama ne la sëñ bi mu génnee ci jàkka bakki bari dafa def bi yéen daf biir kër sama borom nee na aram na muy duggaat tey waxtaanee ko fas bi na nga yëg ne fas bi xam nga foo ko denc benn quartier bu nekk ci Touba bu ñuy wax njëriñ quartier bi sax mën na tuddee waaye fas bi xamoon mu tuddoon xaw ma daal fas bi di ko sëriñ bi womatee bu ñëw sëriñ bi war a yëg ndekki sëriñ Touba personnalité bi yëg na ci du yëkkati am tànk bi yëg di muy yëkkati tànk bi war a yëg fas bi dara yës na gërëm di def la def daa tëdd sëriñ bi war ci kaw mu fekk sëñ bi yëpp sëñ bi yëpp yëpp damaa sëñ Tuubaa suñu borom da ko fonk da ko bëgg jëmale ko gàpp gis nga bëgg gi ñuy yokk ci sëñ Tuubaa ñun kenn dem ci yàlla ak yonent am na sax fu mu bind ne yonent bi saa nee na dëgg dëgg bëgg ma mooy ku la bëgg dëgg dëgg bëgg yàlla mooy ku la bëgg dëgg boo fi bàyyee sëñ Tuubaa dàq yàlla di ko di ko di ko wute ak bëgg su boo àgsee su borom dala joxaat seen tubaab boo ñu bàyyee seen tubaab dàq yéen bi saa si boo àgsee fas bi daa li gi leen tëdd sëpp ñaari bët tànk yi ci suuf ñaari tànk ginnaaw yi xaw ma ne la jox ndaay sëriñ si fas yi mu Cheikh Mouhamadou Lamine yëkkati loo xam ne dafa tënk ci seen i bopp ne leen denc naa leen yàlla ak yàlla bi ak seen rajo bi ñu ko gis nga xam nga tax bi ñu egsee ba Louga ñu jël saxaar Louga xam nga tax ñu jël saxaar li waral ñu jël saxaar mooy diggante Kokki ak Louga su fasu sëriñ bi xëy na ñu doon daw facilement bi ak moom. maam toog bi ñëw di naan ko taxawal xaaral sëñ bi di leen naan leen yéen kat amu leen ko séef seen njiit yónni leen ci man ngeen seetaan dama jiitu doon jiitoo leen ay gëloon ba ñu naan taxawal di xaar yéen amu leen ko séef di ko wax ne dañ lay gis. looloo waral mu egsi lu ko fas tubaab yi kaw di mën a tural maa ngi dugg dëgg sa xaar maa ngi lay yéen a fasu sëñ tubaab bu fasu kasi déedéet jël ko ci guddi bëccëg jeewal nga leen xamal ne ànd ak yàlla surtout li ko ci yàlla ànd ak yàlla dañ koy am solo bi général bi ñëwee na sëñ bi gouverneur général moo ñu yónni dinañ la yóbbu nga ñu si nàkk sa bopp yu bari xoolal nga ko ko am lu am solo nga ne ci seen biir nit ku ñu kenn wéttaliwu la xamu leen sa bopp ki ma yomb di leen def ci jeewal di jël mbokk yi tubaab bi dañoo bindal sëñ Ba moo leen yee kenn xamul lu leen dara sëñ bee leen bokk bokk di leen yee di leen seen njiit yi yónni leen ngeen di naan ba ëllëg juuti ko ndax ba ñu fi essayé 1895 le 5 septembre ñëwuñu rek bureau bi am déedéet def na fa temps yàgg am na sa weeram soxla yëpp la ko def waaye gis nga bu la tëlee bu la bu la bu la bu la bu la bu la joxoon convocation ne la damaa soxla semaine boobu semaine boobu lool ci activité boo ci jàppoon noonu koy bàyyi xam nga lu nekk si sëñ bi la jàpp te kii woo Sëñ Tuubaa du moroom mu kii foo xam di nga fa dem bu su bu la tëlee noonu dama laa soxla ci biir semaine bi diggante boobu foo xam di nga fa dem ngir ngir mën a ñaan ndax moo la mel sëñ bi bu ne cëpp ndax avant 5 septembre bi ñëw jàngale alxuraan yi nekkoon ak borom xam ci sëñ bi ñu ngi wër di siyaare bàyyi wut sax dab lijjanti ko keroog dañ koy indi ci bureau bi xam nga fan la jaarale sax waaw waaw moo saay saay te man koo def jëpti na lan ko ci kat xoolee kanam bi mu sàkku dafa daje sori ak jëmmi si tubaab yi seet nga xam ne seet la seet la bu doon am dayo bu doon am terminé ci kanam lañ ko awal numéro 4 bii ngay dégg sëñ bi nekkutoon numéro 4 déedéet ñett ñeent jot a ràpp da leen di dégg moo tax sëñ bi taxaw quatrième position ngir suñ ñuy ràppeel yem ci moo tax bu ñuy ràppeel rek ràppeel ñeent ñetti nit lay leen sëñ bi dinañ ko mën taxaw quatrième position ndax tubaab yi capable na leen di ñëpp dañ cee tàkk sëñ bi dinañ ko mën taxaw quatrième position moo tax fit ngor jom kenn la ko si kenn am na ko lu mu amee keroog ñu ne jëlee ci bureau bi li tax tubaab yi jàpp ko moom la njëkkee ci bureau bi nit ñi daal dañu ne topp ñu seen sax moom islam moo tax tubaab yi jàpp li si ñu njëkk def ci bureau bi muy julli julli bu mag julli sunna julli boobu sax ñii julli julli farata doo gis saa yoo sax dara ci julli farata ñu tari sëñ bi tari ci biir sunna premier rakka suuratul Baqara hmm? deuxième rakka Ali Imran nga xam ne boo ko doon tari fii tey bu sami daan gaaw dugg maanaam une heure de temps yi ma tànn mu am yéen ci biir sunna la gën a métti ordre général mooy bi sëñ bi sëlmalee ba mu defee ay taay bi sëlmal sëñ bi da koo laaj dana ko kan la muy wóor ci yéen xam nga ko gën a yëngu daaw la ci gën a am ci benn xam nga ko mu ne yëngu bët te kat c'est obligatoire si war koo xam ne ndax dama ne président bu la invité woon pare rek donte mosoo koo gis bu ñu tënk diplôme bi dana ko wane siis bi ñu toog wane ko gàtt ko yëngu diplôme te kooku dama ne gouverneur général moo ko remise ndax kii Sénégal yi def ci Afrique yi sëñ bi ko kan moo mën ko kii mu tànn di furi dal ne sëñ Tuubaa bala maa tontu bureau bi kenn du sama ma xam maa bëgg sama xam ne moom mosul ndax sëñ Moussa ko léegi mooy sëñ bi turiteer la daan jiital doonte te sa gëstu daan te sëñ Moussa Ba ko moo ko sëñ moo am ko sëñ bi lu mu yónni ndaw ne ko maa ngi suutal sa bëti woo bàkkee ko suuf nga jël sa loxo bi dugal ko ci biir kaar bi xëcc na bax ne moom mu foofu ndaw li egsi sëb ñaari bëti boobu suuf nga yëkkati ma ko dugal ko ci biir si bi mu ne ma xam ne ji bi ko yegg nar a mu affaire yëpp yoo xoolal na ko koy mu mu si ma xam ne bureau bi delloo si mu es bureau bi es ñëpp ne ko bàyyi ko ci ci foofu noonu ci saa si avant ñuy génne sëñ bi dara ci leen si ñëpp benn décret boo xam ne dañ ne fu mu ko mën a yóbbu ci àddina dina ko tàmbalee ci doosu ba ci bopp bu gën a waaw c'est important dinaa la dugal ci rokko boo bu ma la génnee di xam ne moom ñu baale ko dinaa la yóbbu ci nit ñoo xam ne bu ma la bu ma la di nga xam ne moom ñu baale ko sëñ bi ne ko tukki boobu ngay wax du ma ne kañ lañ dem du ma ne la kañ lañ bis du ma ne la fu may tëdd du ma ne la fu may naan du ma ne la lu may nekk du ma ne la lu may soxla faral ko embarka dugal ko ci sa laaj bu jëm si Dakar saxaar boobu nga xam ne wago yi ñu jugoon sax bi ay ay xar lañ am bi ñu ñëwee ba Louga sax bi tubaab naxtaan naxtaan tubaab bi ñëw ñu ne duñ yóbbu sëñ bi bàyyi ñu tubaab yaa ko taxaw pistolet yi ñu ko joxoon pistolet yi ñu ngi tuddee mas bal bi ay kilomètres yu bëri ko ñeenti soldat la kii dañ ne ko jëlal sa bal jàpp ci dënn bi kii ñu ne ko jëlal sa bal jàpp ci digg ginnaaw kii ñu ne jëlal sa bal jàpp ci mbokku mbay kii ñu ne ko jëlal jëlal sa bal jàpp ci mbokku jàpp sëñ bi taxaw parce que kii ñuy wax inna ni ustu bil ilahi muhini min jamihi al adaa wa kullahi ko mo ko sëñ bi ko sëñ bi dafa taxaw ko bind ko waxee moo tax sëñ Tuubaa indisir indisir pour tabaxal ko tabax boobu nga xam ne tabax bi ñu bari sax ñu ngi leen tëddi yéen ci xew waaye masse une masse courant ah, tabax bi yëpp moo gën a gis tabax te bu fekkoon ne sëñ bi guddi na lu fi dugal sax mu bu fekkoon ba ci sëñ fan la bëgg a teg sëñ bi faale wu leen waaw suñu borom yónni na sëñ naa Jibril ban na ko fu ñu ko bëgg a dugaloon ne ko am ko digal ko ñun ñu jàpp ne sëñ bi sëñ dafa araam bii ndigal diggee sëñ Tuubaa ne ñoo képp jamono jooju lëndëm boobu moo gën a lëndëm lëndëm wax si maanaam boo toogee yaakaarloo suñu borom ñuy doog gis dëgg seen ñaar ñaar ñuy digal ñu tànn képp si biir si soppe si ñi génn ci bureau ci xeetu naqare gi kenn mu ndaw na yëkkati tànk bi bisimilah léegi bi muy teg tànk bi ci biir bi ci kaw raam jëm yàlla sa biir xam nga ko xam nga mu teg tànk bi rek appui rek raam gi mu métti lool ndax loolu ku ne xam ne nag ci daal ñun ku ci jog aw xam rek di ko defee ku ci pousse a jàpp loo xam ne ko naan dafa annonce bi nga pigour ne ko def léegi bu xoolee différence bi pousson ak rab rab ko ba ci gën a tàng te sañu trop am benn bu sañ a métti ci kaw sañ ko métti ko ci biir ndax suñu borom ñu ngi koy déglu yàlla te loolu si biir yàlla. muy tànk tàngam bi appuyé dafa fu mu ko ñaari tànk yëpp fu ne rab dem fa bi ñu koy def la sëñ ma laaj bi def na ko murid yi am ay métti di ci daanu ay jër di ci jooy waaye man de am na ko gën a métti ci loolu sëñ ma laaj ne ko ak loolu ko gën ko ma ko gën a sujjóot jaamu yàlla ko loolu lu ko gën a métti ci rab yi sujjóot parce que fu mu war a li ma lay wax ci li nga wax léegi ci sëriñ bi mu génnee ba dugg Ndakaaru ba ci néegam boobu nga xam ne fa yi jamee woon nga xam ne gaañu gaañu bi njëkk yëm ne sëriñ gaañu na ko ci liggéey bi mooy ci tànk dëgg la wala te boobu mooy premier exil tam mooy génn bu njëkk bi ak xuruj bi awal loolu da cee doon yonent sallallahu alayhi wa sallam ci génn bu njëkk bi mu njëkkoon a génn dem daay ñu boole ko ay dox ak i gone ñu di ko xaañ ba xaañ ko ci dajal bi tànk yi du naaj moom loo woon rek lay defar waaw deret la woon ci yonent sallallahu alayhi te ay saay-saay ko doon def ba gaañ ko muy naaj loola amaat ci doon ci génn bu njëkk la dal yonent sallallahu alayhi muy génn bu njëkk la ko dal muy génnu gabon

mënta la daal bu doy waar béy bi koo firndeel mooy cent cinquante laa di gàttal laa di gàttal ñu ne sax dara dina dina gàttal ñu ne si mun na sax fi mu ne laa sàkk fii indi nga daal nga zàkk muy doy waar nga xam ne bu fekkoon daa yem foo xam yàlla na ko màggal yàlla na ko wàcc naa te ko jërëjëf sëñ bi ñu bis waat bu baax taxul sax ñu ne ñu mën a gis fa yem tànk yi dañ koo màgg ndax fépp dara fépp fu ne dara koy def dañ koo màgg màgg te teew ñu ngi ciy dox di ci soox di ci dox nga xam ne tukki bii gamoo bi nee na bi mu essayé ba ku nekk nii ci leen war a gamoo la ko xoolal di nga yóbbu te xamoo fi nga yóbbu dama ne mbokk yi nan nan nan xalaat ci ne ku ci doon dem gamoo gii ci biir ay làkkat yu làkk ay màmbara li ñuy wax xamoo xanaa xamoo lu gën a métti loolu amul dugg ci xel yoo xam ne li ñuy wax xamoo lu ñu wax da nga naan ñii man la ñuy def moom nañ def ba dañoo dugg dëgg dugg ci ñoo xam ne rek li ñuy wax xamoo loolu rek gaal yi mu yóbbu Gabon tolloon na ci fukki gaal ñaar fukki gaal ak juróom gaal si ñu laaj gaal yi am ci nekk sa gaal yi ñu koy ñu koy fonk mag Aliou Mbengue ñi ak Moussa bi nañ ko jàpp daal di génn at te benn jàppukaay bu ñu si gaa yi si ko te xottu gaal gaal yi ñu si a def loo xam ne bu doon doo doo ko am dogal ñaar fukki mu ràññee leen ñii ba xam ne costa ko yëngal ci kaw tubaab bi ñëw na ko sa bagage yi dafa bari amul ku la ko jàppale lépp yaa ko yëkkati wax na ne keroog suñu diwaan fa taskaare takk ci liggéey groupe bu wax kan ci loxo ndajoor groupe kan ci loxo jàpp jéeg ci kaw kii bi jéeg ci kaw kii bi daal si bilaay mi ngi nekk ne ne am na ci gaal yooyu boo xam ne ba tey ñoom sax nee na gaal boobu xamuñu ci biir ndax gaal bu baax kenn ko ci suuf kenn xamuñu ci biir nee na gaal bi bi ko tubaab yi yëkkatee nar ko teg suuf dégg naa sëñ bi maanaam diggante bii sëñ bi fu mu ne ko aw ñett ñett ko rek doog aw daal boo xoolee ko yow yéen a déggoo ci égal bi suñu xoolee yéen a mu ci kaw rek ñëw taxawal ñu ñëw jékki ba dem jékki yow ci kaw. kon nag kii nee naa la kon nag kii ci la sëñ bi yëgale kaw moom dina ci ko ay am saa saa bii mu déparé juddi géej gi ixtilaaf yi bari waaw lu ma la ko sëñ bi ndax loolu ku nekk de siñ daam si siñ daam wax naan loolu bu ñu jógee ci géej gi def tournée fenn fu nekk dem fa ba war ñu ndaam bu ñëwee siñ daam dana ko dama ne la woon doo toog dinaa seet si siñ daam ne ko dooloo toog yéen a seen nga ñuy def yéen mooy benn sëñ bi yëkkati ay bagage ko def sax dañuy daal di daal di daal boobu am na kàddu siñ daam bi moom la yàlla ko jël yenn saa yi ñu yëkkati daal di jox daal di si yéen ak si jàmm bisimilah si yaari gi daal di dugal ci ci daan ko géej gi sax li may dugg ci géej gi si yaari gi daal suñ daan ñëw te duñ dox ko baax kon duñ ci géej gi suñ kon maanaam sëñ bi sëñ da ci gën a siiw nag ñu ngi tàmm sànq moom moo ci gën a siiw waaye am na yeneen nett yoo xam ne suñ bàkki bisu leer yaa moo taxaw géej moom man da diggante ko rek da nga taxaw da nga taxaw ba ak safara waaye ñu ne yërëm sëlëm lañ dugg waaye duñ wàcc ci ndox ci laa nga xam ne sëñ Tuubaa ko dëkkale maanaam boo ko wàccee penku ak soowu mooy ñetti liggéey deuxièmement bi mooy den boo ko dalee ndox ay montagne den boo ko dalee daa war a ko ba ñu des mooy der bu da nga ko waral mu jublu nii booy bàyyi daa war a ko ndax ndox nii lay def sëñ bi laal der ci ndox cëpp ay tonne mais bu ñu demee benn jour si géej boo dem ba ba dañuy jël ndoxu géej soog si fi ñuy def gaz daal mu mën a mën a tëgg. ñaar fukki fan bu ñu amee si géej bu ñu deful loolu bu ñu nelaw problème ndax ni ko ndox mi di def. yéen moo tax yéen mën na si. yéen ku ci dem doy na géej ku ci nekk doy na si tubaab ñu ne suuf si njëriñ waaye sëñ bi ci boppam moom moo nettali sëñ bi nag ni ko suuf njëriñ la waaw loolu sëñ bi moo koy askan waay daa ni ko Jibril am na juróom benn téeméeri laaf benn laaf bu ko yàlla masaan yónni ci benn su ko tàllalee benn laaf bu tàllalee bu ko tàllalee ba mu jël dootu mën a contrôler ko dëgg sa la jël juróom-ñaari suuf sëñ bi bu ko yàlla masaan yónni ci yeneen bi mu war a ñëw ci moom bu bu bu tàllalee benn laaf juróom-benn téeméeri laaf su tàllalee benn maanaam bu mën a contrôler la jëm juróom-ñaari suuf kon bi ñuy naan sëriñ bi joxal ci laal ci bëgg suufu njëriñ yóbbu leen ko sëñ Tuubaa ci géej gi mu sujjóot ci keroog jëm leen ko yàlla def fi ne ñëpp naa ko daanaka a ma la am nekk boo xam ne sëñ Koso rab boobu diggante États-Unis ak Afrique yi dama xamul ci pays bu nekk mu ko diwaan xaw ma waaye rab bi daal lim daane lim daan daane ci ay bato kenn xamul mu toll ci biir géej gi la nekk tubaab yi façon lëng yi bu ne lëng jël def ko def nañ ko ci géej gi ngir bëgg koo xam bëgg koo jàpp mënuñu koo gis. bi sëñ Tuubaa ne allahu akbar ñu toog la rab na jógee sàpp ci ginnaaw sëñ bu sëñ bi rooboo moo ko bu sujjootee mu sujjoot bu jógee taxaw nga xam ne tubaab yi mënuñ dara sëñ bi rab na ko ndax lii wër nañ ko te ak mënuñ ko gis léegi sëñ Tuubaa li ne woon lu yàlla bi yéen a ci te mënoo ko bind tax am sëpp mën na ko baax mën na ko duma nit am sëpp mën na ko baax mën na ko lu yàlla bind yéen a ci yéen a ci ñemee

sëñ bi ne ko ànd ko waral mu ne ko digg géej gi ku ci mën a fit amu ci naaw lu yàlla bind yaa ngi ci ëpp ak wilaaya sëñ bi ne ko lu ko waral mu ne ko ndox mii ni mu xaree foo xool di ndox nga sukkandiku sa jëbi di tax suuf lu yaa ngi gën a gore sëñ bi ne ko lu ko waral mu ne ko fa bi gën a digg ci mënoon nga faa jaar kenn dootu gis waaye dina gis sëñ bi ne ne ñàkk jom moo leen taxaw waaye may wax ak yéen ca dara wax leen jot a jaar danaa kii daw ne daw ne mooy capital benn Grand Bassam Boutiba jóge fa jóge Libreville. sëñ Tuubaa bi ne cëpp Libreville liñ ko njëkk a def mooy dañ koo gas ba mu xóot mu sóor baat bi yastara li mu naa la daal li wal wal yi man xaar ni maa xaar pour li ko ci biir war moom sëñ wax gas ba mu xóot ñu sóor xoolal suul nit muy xool def nañ ko fa juróomi at yàlla yoo xam ne taatu garab boobu am na ci at ak genn wàll yoo xam ne sëñ bi bu toog day jàpp naa rek suuf day jàpp naa rek suuf tabaaraka rabbi day faa des a jël wax faqiran qariban indaka allahu kafa nga xam ne moo ko waxal ko di boosu ndox di yàq di mu nekk taatu garab du sooy da nga tax leneen ban bis bi ngir ban taxul ndax rab boo mës a ci àddina dana génn ci ndox wala mu génn ci kott bi wutal si sëñ bi def ko di jaay tàgg yonent bi hmm? jaay bi maraat fan ko sëñ bi di xasida gii muy mois bu naa fer bi taay nga xam ne bi mu koy bind suñu borom ko daf ñu ko xasida gi ngay waaj tarif ah waaw ah, mu xatmaat xidma ak ah, mu xatmaat xidma xelal seen tarif moo tax xidma mu xatmaat xidma nga xam ne sëñ Tuubaa nee na suñ ko génne woon ci tukki bi da ciy delloo delloo ma doon diggante fee baaxul ko xasida boobu mooy gis nañu ko jàng sax xidma mboolem mos a bind ay téere ci sarab mos jege mosu koo bind lu jege xam naa da suñu sa mosuñu koo dajale ci ay tur yonent bi sallallahu alayhi wasallam te dégg nga façon tur bi ne tur ci bis bis bis maas maas bu ne war na ko tur yoo xam ne kenn mosu koo dégg ci ndox nga xam ne wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam te

gunóor yooyu xam nga mu defoon sëñ boo gisee nii muy solo lii jot a feeñ ci kanam gi loolu noonu gunóor yi dañ koo samoon ko màtt boobu loolu sax moo indi nasantu bi sukkur si kaay bi loolu nga xam ne nee na ak ak jàmbar ak miti miti miti miti day ci sant yàlla xasida boobu nga xam foofu la ko sëñ taalibe moom it ñu ko bind ci taatu jàll boobu ko yonent bi saa sallam nee na li ngay a taalif xasida gi junni wax ne su junniy nit nekkoon ci jamono kenn ku ne jàng ko junni yoon tax mu doyal ci moo tax jël suñ tubaab daan bi nga ko bindee pare imaani wal islaami wal ihsaani wa ila saxaadatin daa'imatan mu farri biha rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam def naa ko tam ñu koy jàng mooy islam iman islam ñi jàng mooy li ngay wax ci yooyu nekkoon na moom ak dañu mat nettali na ko kenn ci ay doomu jigéen maa dañu jaawal soxna ak waaye da koo wax ne tubaab bi da tax mu yóbbu ko foofu dafa amoon ay matat yu fa nekk yoo ne bu ñu mat lu mel ni sidur da lay def yoxoos ba ba ngay baax loolu taxoon jóg ngir bëgg ñu mat ngir loolu daal ay yoon la ko jënd ay coono la ko jëndee yu nit yu tar yoo xam ne benn képp nit at dugg ci benn sëñ bi benn képp nit at dugg ci. xasida gi bi mu paree suñu borom yàqu ci ne ko ko takkal sa ndigg nga yëkkati ko keroog sëñ bi ne amul lu koy yëngal day teg kaar gi jub takk ndigg ni di daaj di jàpp. mooy daal di sëñ bi bii ngay dégg sëñ Tuubaa mu ko njëkk a jàng ci ci ci jàngal. sëñ Ba jàngal ma bu muy sëñ Tuubaa xam nga daal bi ni mu neexee foofu la ko daan jàng ba nu mu ñëw teel. waaw day day neex saa su ne am na beneen sax beneen boo xam ne dafa dëppoo jamono ñu bëri sax jàpp ne gaa yi sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa jàpp mooy. إما النبي ورسول إما الذي جاء برسول सुव